jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal di leen jox seen wàcciwaay bu baax a baax di leen wax na nag tey euh, ñoo ngi fii bi Wassare di def émission bi nga xamante ni édition spéciale la ma ànd ceeg ki nga xamante ni mooy Baye Djily euh, sama xarit bu baax bi ni ko mbenn di waxee Baye Djily mu sell mi Baye Djily mu rafet mi Baye Djily bu baax mi Baye Djily léegi noonu daal ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéel waxtaan bi mais nag hmm, balaa may ci nuyoo bi tey moom xanaa da ngaa mais moom macha allah maa sañseeti ni ma daan def costume cravate sama xarit bi Babacar borom Espagne maa ngi koy jaajëfal bu baax moom jaayul yére jaayul dàll waaye moom bu ma sañsee rek moo ma ko jox maa ngi koy ñaanal yàlla na jàmmam yàgg sama waaj ji. amiin hmm, maa lay nuyu Ouzin di nuyu mbokk internet yu wasaare làmb yëpp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen. parce bu ñu nee en décembre mooy at bi dugg nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla génn ko ci alhamdulilahi rabil alamin di leen jéggalu bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen safa wasaare làmb di ko seetaan lépp loo xamante ni njuumte la wala rëq-rëq la ñu wax ko mu blessé leen jubluwuñu ci loolu ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ndax bu ñu soñoon lépp lu ñuy wax nit muy doon loo xamante ne lu neex la wala lépp lu ngeen di gis ci ñun mu doon loo xamante ne lu leen di bégal la waaye nag nit ku parfait amut yàlla moo mm-hmm. moo ñu moo ñaale ak ñàkk a mat matadi googu nag ñu ngi koy jéggalu mbokk internet yi di leen wax rek ngeen ñaanal ñu wasaare ay xale ñoo fi nekk mais ngeen ñaanal ñu ay xale yu jàng lañ di góor góorgóorlu bëgg rek saa su ne ñuy ñuy def loo xamante ne vraiment euh, day dab seen bànneex ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen di jaajëfal Ouzin mii nga xamante ni wax dëgg suma suma waay la suma xarit la man ak moom lu yàgg la ndax vraiment nit koy àndal dépp bi ngeen nekkee xale ba ba jën yàllay tey ji vraiment ànd bi di rafet euh, wax dëgg mënuñu lu dul di ko félicité gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey ci wasaare làmb bu ngeen xoolee image bi gis Ouzin démb ak Baye Jili gis Jili tey ak Ouzin nga xamante ni vraiment àdduna saa su ne rek eh, yàlla suñu borom mooy def ay nit di ànd vraiment mu nekk nit koo xamante ne nit ku baax la suma xarit la yaayam sama yaay la papaam suma papa la ay rakkam sumay rakk lañ eh, may ñaan jàmm rek di ko ñaanal moom it bu baax gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koy def maa lay jaajëfal bu baax di la siyaar sama waa ji doolu di la jaajëfal ni ma koy waxee ku yokkul ku ne da wàññi te hmm. wax sa waaxu mbaay du wàññi sa mbaax daa hmm. ndax eh, mënoon nga ni euh, man ak yow ñoo bokk bërëb bi mais ñoo bokk li ñuy def moo nga ne du ma la xajal ci dara wala boog damay def lépp ci sa place mais gis naa ni nga koy doxalee des fois nga toog ay fan yoo xamante ni danga may bàyyi ma liggéey ndax bëgg nga saa bu ñu la gisee gis ma wala fu ñu dégg samay moom di la fa dégg dégg ma fa moo tax chaque jour damay gis ni ngi may poussé ni ngi may jàppalee des fois ma dem tourne ji ba dëpp nga woo ma téléphone na ma nangam ak nangam boo ko defee woon nangam dina baax wala nangam ni nga ko defee baax na mais bu beneen yoon defee ko nangam nii boo ko defee dina gën a ñoŋal sa liggéey ma kontaan ci saa bu ma coupé damay am fierté euh, ci wow bi may woo ak ci xelal bi may xelal ak ci wax bi ma koy wax ndax defe naa ne fii euh, ku réylu rek defe naa ne lépp loo bëgg lu nekk danga ko am moo tax damay kontaan ci yow bu baax a baax. Hmm. di la wax ne comme ni ko tubaab di waxee j'ai tout cœur avec toi ndax defe naa ni xol moom bu seddee rek lu jugee ci rek lu ne ci xol ba lay fekki te lu dagg lu nekk moom ba lay fekki bàyyi ji lii ba tax na tey nag ñu bëgg waxtaanee làmb hmm. tey defe naa ne bu mu nee édition spéciale hmm. spéciale la ñuy wax moo tax boo gisee suñu comportement bi ak ni ñu toogee des fois bu ma la gisee nga tourné ba noppi euh, damay kontaan ci yow ndax li ma koy waxee chaque jour rek nit ku nekk bu lay seetaan ni mu lay gisee ndax hmm. kii dalay xool sa comportement kii dalay xool ci ni ngay waxee kii dalay xool ci ni ngay jëfee kii dalay xool parce que sa image dafa rafet hmm. te image bokk na ci li nga xamante ni nii dafay jaay hmm. li ngay def ndax defe naa ne boo xoolee da mu rafet xol bi day sedd ba tax na bu mu la gisee ngay def làmb ñu ci bari dañuy fa di wax làmb ñu koy def wéruñu wala làmb mm. ñu koy def nitewuñu mm. mais bu ñu la gisee comportement bi nga comportoo ba noppi di wax ci làmb mm. dangay ngay gën a valoriser li nga xamante ni ni moom ngay def ba tax na tey ñu bëgg a waxtaanee ci li nga xamante ni moo jot a xew ci làmb ci diggante mille vingt ak vingt 2021 ndax yu ci bàyyi xew na ci euh, fi ma koy njëkkee rek mooy am nañ suñu kilifa yoo xamante ni nii ku ci nekk tàggat nga bëri ku ci nekk yóbbu nga làmb sooy ku ci nekk teewal nga làmb fu bëree bëri bëri Mm. yàlla dogal ne ñu génn àdduna ma bàyyi la nga ñëw ci ñi nga xamante ni jot ñoo génn àdduna mooy ci wàllu mbër amateur supporter ñi nga xamante ni daal mbooleem njabootu làmb lañ ñi nga xamante ni dëddu nañ ci euh, bi saison bi tijjee ak léegi bàyyi yi. wallaay Ouzin dëgg la parce que yàlla suñu borom euh, dee la njëkk a bind avant muy bind dund. Mm-hmm. te yàlla dafa def. bakkan bu ñam dund di nga ñam dee. Mm-hmm. kulli nafsin saa'iqatul mawti. Mm-hmm. ndax yàlla suñu borom moom saa su ne rek euh, ñi mu bëgg. la suñu borom di jël. ñun nag defuñu ñi ñi dem defuñu lu tax suñu borom yóbbu leen fi waaye ñun ñu fi des defaluñu suñu borom lu tax mu bàyyi ñu fi. kon ñoom ñi nga xamante ne dañu génn àdduna ci suñu papa yi euh, ñu leen ñaana yàlla suñu borom yërëm leen te xaare leen àjjana ci àjjana yi si gis nañ duñu fàtte mukk branche bu mag boo xamante ni kenn la woon ci làmb koo xamante ni vraiment ñun dañu koy nettali ci taarix hmm. ñu ay jamonom fekkewuñu bi muy bëree. muy mm-hmm. suñu papa booy mu mm-hmm. gannaaw tawat bu yàgg boo xamante ni tawatoon na ko mu tëdd. tëdd bu yàgg ba ba ndimbal bu ci nekk jot na ko yàlla suñu borom def li gën. Mm-hmm. li gën mooy booy bambara jóge fi. ñu koy ñaanal yàlla suñu borom. yàlla na dee di naafilaayam fële mu jëm. yàlla na ko dàqal loolu fii mu jóge bu ñu jógee ci booy bambara suñu xel day dem ci suñu papa. Mbaye Guèye mhm. nga xamante ni moom it bu ñu nee la tigre de Fass xel day dem ci suñu papa Mbaye Guèye moomu nga xam ni defal na làmb lu nekk mhm. yàlla suñu borom dogal moom it ginnaaw feebar bu yàgg boo xamante ni tëdd na ko suñu borom def li gën li gën mooy Mbaye Guèye dem na wuyu ji suñu borom moom it ñu ngi koy ñaana yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko àjjana moom suñu papa la suñu lépp la jël naa moom am naa sens jël ko interview mhm. parce que mbër yi d'habitude ancien couloir yi awma sens ñu ci ma am ak ñoom interview mais suñu papa Mbaye su ma demee ba xool ci samay archive gis ni ah Mbaye Guèye nekkoon na Tigre de Fass moom moo njëkk a nekk Tigre de Fass bàyyi jili am na ko émission loolu vraiment sant yàlla la. Mm-hmm. mu amaat keneen koo xamante ni doomi papay mbër la. Mm-hmm. muy Double Less. nekkoon koo xamante ni vraiment moom it dafa yokk làmb bu demee ba jur doom doom ji nekk fi roi des arènes. Mm-hmm. wala nekkoon fi roi des arènes. muy Balla Gaye 2 ak Sa Thiès ak ni ñu bootee làmb moom it mu jóge fii mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana di ñaanal amateuru làmb yi nga xamante ni dañu dëddu supporters yi fan fans club yi ak ñëpp ba ci Ousin démb mm-hmm. xale bi nga xamante ne mooy xeeru ngor numéro deux mm-hmm. ki ko doon yore mystigam di ko sotti gàllaaj moom yàlla suñu borom da ko dogal mu génn àdduna bërki démb la génn àdduna ñu ngi koy jaale waa Ngor yëpp. ñu ko mhm. jaale xeeru Ngor. moom mi nga xamante ni vraiment champion la. dëgg la di day naa ko moom it. démb xamal nañ ñu moom it génn na àdduna. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te ko àjjana. ak mboolem jullit ñu fa fekk ak ñu ko fa fekk. ñu ngi ñu ngi ñu ngi xam ni daal loolu daal bokk na ci tiis yi nga xamante ni mënul ñàkk ci at bi. te mënul ñàkk ci làmb ji waaye ñu ngi ñaan yàlla ñi fi des yàlla na leen fi suñu borom bàyyi ba ci kanam a kanam kanam. yàlla na la suñu borom bàyyi ba ci kanam a kanam euh, bu ñu jógee ci loolu damay ñëw ci combat yi nga xamante ni nii euh, daanaka bi ñu nee saison bi xawoon na gàllu góose maanaam li ñuy wax naan yaramu mag la rek foo laal day metti làmb ji xawoon na demee noonu hmm. waaye mbokk yi bi saison bi tijjee combinaison yi taxaw combat yi nga xamante ne taxawoon na depuis boobaak léegi dellusiwaat bokk na ci li nga xamante ni yaakaar nañ ne saison bi war na mën a jëm kanam wala boog làmb war na fa mën a jaaree dékki. Mhm. ci combat bi dox ci diggante Sa Thiès Moussa Ndoye. Mhm. Papa Sow Siteu. Mhm. Tapha Tine Boy Niang euh, Bombardier ak ki nga xamante ni nii mooy Balla Gaye ñu jëm ci suba. combat yooyu nekk combat yoo xamante ni coin su double moteur. Euh, soq gàmmu gi mu nekkoon làmb yoo xamante ni euh, biñ ne affiche yooyu ci ci saison bi lay am. ñëpp yaakaar na ne dinañ ma dinañ mànd làmb mais ñenn ci amateurs yi nee nañ niñ ko niñ ko doon xaaree wala boog li ñu buggoon ci bés yi amu ci bés yi. Hmm. naka nga jàngatee ni amateur yi wax ak ni làmb yi demee ak combinaison yi taxaw ni mu neexee woon Baye Djily. waaw Ouzin combinaison wu làmb dafa neex. parce que yaakaar naa ni euh, avant Covid bi journée làmb yi taxawoon yëpp bari na. Hmm. mais bi moo ñëw euh, arrêté activité yu baree bare bare bu arrêté activité nag comme ñi nga xamante ni ñooy xëy wala ñooy liggéey wala ñooy tukki. Mm-hmm. di di wuti li nga xamante ne ñooy koom-koom ñoom la ñu tëj seen bërëb waxuma laa ñi nga xamante ne mooy sportu làmb mm-hmm. yàlla suñu borom dogal ginnaaw bi jàngoro bi jugee ci réew mi wala boo gën a wàññeeku ci réew mi te ñu ngi ñaan yàlla yàlla na gën a yokk yàlla bu mu fi jaarate yàlla bu ñu ko séen parce que yaakaar naa ni lëmb na àdduna te sonal nañu ma dolli la ci bi mu mm. amee mbër yi def na geste boo xamante ni nii li Sénégal di rëy rëy mm. li espoir yi di ku ci nekk nga sa fukki dërëm cent franc sa ñaar dajale ko ba mu bari ñu teg ko ci kii nga xamante ni mooy loxo Gris Bordeaux mu yóbbul ko ministre bi ñu jën ci ay gel. Hmm. ay saabu ay eau de mu nekk geste boo xamante ni dama leen ciy jaajëfal ñëpp ndax bu ñu ko defee ñun lañ ko defal ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci làmb baay ji. dëgg la mu nekk geste boo xamante ni geste bu symbolique la. Hmm. ndax yaakaar naa bu ñu nee làmb mbër moo gën a tabe ci lu yàlla sàkk. Hmm. parce que man nangu naa loolu gëm naa ko. du mbër mi lekkuma xaalisam rek non dafa nay. gis nga tabe nit mën naa yor ñaar fukk nga xam xam kii tabe na wala tabewul. Mhm. tabe du ci xaalis bu bari. nit kii mën na ñàkk yorul dërëm nga xool ko xam ni kii nit ku tabe la. parce que tabe ci ci ci xam-xam bi ngay am partagé kook nit rek loolu ci tabe la bokk. ñett yi de dégg naa ku koy waaj doo ko def. Mhm. sangu sedd. Mhm. maye xaalis. Ah. ak kaay xeex ku koy waaj doo ko def. <laughs> man de sangu sedd laa ci gën a ragal su ma duggee ci duus bay xëppoo ndox sama woo bi foo toll da koy dégg ndox moom dama koo ragal rek suñu waa kër sax nañ loolu ndox moom dama koo ragal rek léegi Ouzin bu lekk loo xamante ne vraiment. Hmm. mbëri dajale nañ seen i Dakar seen i déem seen i buy dem yóbbul ko li nga xamante ni mooy ministre des sports bi. Hmm. ñuy ñaan yàlla suñu borom defal leen jàmm ñoom ñëpp di jaajëfal ñëpp Ouzin. mu nekk làmb joo xamante ne vraiment Covid bi bi mu ñëwee. Mhm. gars yi ubbi ubbiwaat saison bi. dem nañ CNG promoteur yu bari jël dat am na ci làmb yoo xam ne dañ ko doon xaar namm ko naam. Mhm. làmb yooyu gis nañu ko. Ah, weñ bi moom. làmb yooyu. cat la rek. <laughs> ah bu toog <laughs> nekk na làmb yoo xamante ne làmb yu neex la. Mhm. tey boo xoolee bi ñu ñëwee jàpp date am na journée yoo xam ne yàlla suñu borom dogal na mu yegg ci jàmm. tey am na ci journée yoo xamante ne yàlla dogal na mujjeewul a antu mm-hmm. ba contrat yooyu beneen promoteur du ko mujjee jël tey mun naa joxe ci exemple combat Siteu Papa Sow mm-hmm. mu nekk loo xam ne pendant trois ans ñu ngi koy xaar mu sonn mu metti loolu ci ñaari mbëri yàlla suñu borom dogal malgré ameewul ni ñu ko bëggee mais jeex na ci jàmm mm-hmm. euh, ñu xool ci combat bi dox ci diggante maam Lamine Garga 2 waa Vox Arena ñoo ko organisé woon organisé woon ak yeneen journée yeneen journée yooyu antu ñu dem ba ci Maama Lamine Garga de xale bi di Maama Lamine blessé mm-hmm. boobu moo ko jural tey ñu jàppaat dat jàpp dat promoteur bi dem ba ci digg bi xam ne vraiment avance bi mu jël kat jox ko mbëri dem na ba mujj gi contrat boobu mënatu koo tenir mu mujjee bàyyi mbëri keneen grandeur la waaw loolu loolu ci ngor la bokk mm-hmm. loolu ci dignité la bokk loolu ci gëm sa bopp la bokk waaw parce que Ouzin àdduna lépp risque la est-ce du du am dara ci àdduna. tàppet boo tàppetee mooy ragal rek boo tàppetee ragal du am kër ndax booy booy jënd terrain sax da ngay fi may jënd terrain bi mun naa am ndox wala de doo def commerce. ndax dàll bi ngay war a jëndee téeméer di ko jaay pour am ci deux cent sax doo ci ñemee dugal sa téeméer yooyu. kon loolu ragal la. tàppet boo ko defee doo ñemee jël sa micro wàcc stade àdduna bépp di la seen nga ñemee dem affronter gars yi interview mbër yi wala. amateurs yeeg yooyu. Mm-hmm. kon mu nekk loo xamante ne vraiment dañ leen di saluer bu baax ñoom waa Vox Arena ci geste boobu ñu def ba beneen promoteur jël nañ ko ñuy ñaan yàlla rek yàlla nañ ci dugg jàmm ak salaam yeggale ko alhamdulilah rabbil mais en tout cas daal lu mën a xew mooy làmb yëpp yi ñu yaakaaroon yàlla suñ borom dogal na ko ba am na mu des ci Balla Gaye 2 ak B52 di Bombardier. Mm-hmm. mais à part yooyu combat yi ma gis ni moom la Covid bi teewoon yëpp. combat yooyu moom actuellement Ouzin jàll na ci jàmm daal. jàll na ci jàmm suba ñu euh, dem ci combat mag bi nga xamante ni mooy dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier mm-hmm. ñu gis ne suñ papa Gaston moo ko tëgg mm-hmm. waaye gannaaw nag ñun moom làmb moo ñu tax a jóg dàq mm-hmm. nañ ci yëfam waaye teewul tamit euh, mu nekk làmb joo xamante ni war nañ cee mën a wax li nga xamante ni moom lañ ci yaakaar ndax dama wax liñ ci xam ndax xamuñu dara ci làmb naka nga gisee combat Balla Gaye 2 ak Bombardier mu ñu bëre woon ko Balla nekkoon roi des arènes kii li xamante ni moo ko bomba Bombardier moo ko ci jëlee woon ñu ñëw ba bëriwaat revanche Balla Gaye 2 dem préparé ñëw làmb ñu ajaat ko mu delluwaat waajalaat bopp ñëw war a jàkkaarloo nga xam te ni mooy Bombardier naka nga gisee ñoom ñaar. waaw Ousseyn li ma gisee ñoom ñaar mooy euh, dañuy dañuy dañuy jaajëfal bu baax suñu papa Gaston vraiment mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi def lu am solo ci làmb. Mm-hmm. ndax nag wax dëgg du ñu ne euh, li muy def ci làmb baaxul. baax na parce que mu ngi mu ngi ñëw ci làmb di di di di yokk mbëri di leen tëggal ko combat mais am na ci yoo xamante ne ñu ngi ñaan mu xoolaat ko bu baax. Mm-hmm. parce que suñu papa boo xamante ni vraiment du dellu ginnaaw. Mm-hmm. loolu dafa ma neex ci Père Gaston du dellu ginnaaw. moom maanaam bu xësee jàpp <laughs> du bàyyi mais ñu koy jaar rek di ko jaajëfal bu baax journée boobu di ko ñaanal parce que vraiment du liggéeyoo lañ sama journée rek dañ koy ñaanal mu échec. Mm-hmm. yaakaar naa suñu papa Gaston doomu Sénégal làmb échec. làmb échec te yaakaar naa doomi réew mi la. te it bu bu bu nekkee ci dara dañ koy ñaanal yàlla mu am réussite. Mm. ba lépp lu mu séentu ci journée boobu yàlla defal ko ci. Balla Gaye Bombardier dañ def très attention ci làmb jooju. Mm-hmm. parce que ñi encadré Balla Gaye mm. indi ko xam nañ ki ñu yor. mais nañu fexe bu baax a baax a baax jéem a xam kan mooy Bombardier yi. Mm-hmm. Ousseyn Bombardier Yaxya ki ni da doon wax wax bu am solo. Mm-hmm. mu ne gars yi dañu ko jàppee ngaaka. ci ngaaka boobu la jeexalee génération am yëpp. ba ma jee bu ne la daan na Moustapha Gueye daan na Zallo daan na Eumeu Sène déggal daan na daan na Modou daan na Balla Gaye benn defet la am moom Eumeu Sène ak Tapha Tine par abandon nga xam ni vraiment ñi dàq bëre ci làmb Bombardier bëri naa ñoom mhm. te ñi ngay tuddee ndaanaan ci làmb Balla Gaye ku ko gën a doon ndaanaan ci làmb amul bala Bombardier ci bëre la ko daanee mhm. kon nañu xoolaat bu baax a baax mais xam naa ne làmb la boo xamante ne làmb ju neex la neex na ñu ngi ciy séentu xeex waaye ñu ngi ciy séentu bëre en tout cas daal làmb ju neex la Ouzin. en tout cas làmb ji neex na. Euh, su ma jógee ci loolu damay ñëw ci xale yi nga xamante ni nii wane nañ bi. Hmm. ndax gis naa ci xale yoo xamante ni nii euh, li nga ko gaa yi di waxee combat jànk. Hmm. ndax su ma ñëwee ci Ada Fass dafa mbër. Hmm. ma ñëw ci ki nga xamante ni nii mooy booy bi dëkk euh, Colobane. Euh, Mor Kankang Mor Kankang Mor mm. Kankang ma gis si xale yoo xam te ni Kaaw Gourdin mm. Thiat Daouda Fall mm. Petit Lo ma gis xale yoo xam te ñu ci bay euh, wan nañ seen bopp ci làmb xale yoo xamante ni génn nañ seen bopp ci làmb ku ci mel ni Bou Siteu Liss Ndiago Laurent phénomène yi waaw xale yi nga xamante ni ñëw nañ un giga mu nekk xale yoo xamante ni Euh, dañoo dikk mais bi ñu dikkee gars yi dañoo dañoo dañoo rafet lu seen ñëw ci làmb. Hmm. yokk nañ ci làmb lu ba ba ba nga xamante ni ñu daaw woon seetaan làmb sax. Hmm. dañ leen bàyyi xel naka nga gisee xale yooyu ñëw yokkaat ci làmb baay ji. Ouzin waaw loolu am na solo parce que am na ci xale yoo xamante ne vraiment ñu ñëwee ci làmb moo tax dañuy jaajëfal bu baax suñu mbokk site internet yi. Hmm. képp koo xamante ne yor na site web ñu ngi lay jaajëfal bu baax gis nañ liggéey bu rafet bi ñuy liggéey. Mm-hmm. Ouzin xale yi ngay gis ci làmb actuellement yëpp ñu téye làmb lëmbe ko doon ay phénomène ci làmb site web yi ñoo leen génne mm-hmm. tey boo xoolee xale bu ci mel ni Tapha Mbeur mm-hmm. boo xoolee Wulli boo xoolee Liiru Jaan boo xoolee Liss Ndiago boo xoolee lorant ñoom ñooñu ñëpp site internet yi bokk nañ ci ñi leen jël génnee leen ba àdduna bépp ràññee leen boo xoolee xale bu mel ni un ziga fan yi moo moo moo lëmbe réew mi mm-hmm. vraiment moom it mu nekk xale boo xamante ni bi mu génnee gis nga site web yi ñoo ko génnee kon site internet yi kenn mënu leen a fay ñuy jaajëfal bu baax xale yi nga xamante ni vraiment bokk nañ ci révélation bi ren xale bu ci mel ni Kaaw Gourdin mm-hmm. nekk ndaanaan nekk écrit nekk Dalifor doon xale boo xamante ni dugg na ci tournoi génn ci mm-hmm. ak trois points wala euh, génn ci ñetti combat yëpp vraiment mu génn ci ak ak ndam. Mhm. génn ci dernier combat mu am caatu Daouda Fall nekkoon combat boo xamante ni combat capital la woon ci moom. Mhm. mu génn ci wane boppam. kon mën nañ ne xale boobu révélation la ci làmb. Mhm. ci kaaw Gourdin xale bi nga xamante ni bëri na combat bi gën a gaaw ci at bi boo ko doon xool mooy caatu yaraax. mu nekk ndaanaan boo xamante ni vraiment combat am nee naa ko keroog lan moo tax doo bëree deux minutes trois minutes. mu ne en tout cas ñi may àndal bëgguma leen a sonal. digganteem ak serpent noir. xoolal digganteem ak. arène nationale la woon. waaw digganteem ak. mbëru euh, bawol bi zaal zaal zaal bawol moom la mujjee bëreel stade Jom Iba Mar daan ko ci ay seconde euh, bëreegul benn combat boo xam ne da ci bëree daan ci mbër ay une minute. wala yu mel noonu mu nekk xale boo xamante ni vraiment na ko làmb gën a bàyyi xel. bari na ay combat yoo xam ne Ouzin am na fi mu doon ko ay làmb yoo xamante ne vraiment làmb yu neex la amateur kontaan nañ ci. bëgg nañ ci ndaka boo xoolee diggante mbay guy gi. Mhm. ak ak ak maam Balla. stadium mhm. Iba Mar Assane Ndiaye Baol production moo ko organisé woon mu nekkoon làmb joo xamante ne vraiment làmb ju neex la sànq yaa ngi may fàttali combat bi xale bi dëkk yoof Yoff Modja ak caatu Boy Bambara. combat boobu keroog stade arène national làmb ju neex Ouzin. bi ma bi ma bi ma dugg see gis prince ni mu def stade bi def table à manger. Hmm. mu nekk loo xam te innovation la ci làmb hmm. defe naa ci diine la galaa yi soirée lañ ko doon gis mais boo ñëwee ba ci làmb gis ñu tegal la ay table wutal ñu hmm. toog di la jox ngay lekk mu nekk loo xamante ni journée bu bu bu boo xamante ni xale yi ñaari xale yi ñu duy stade ba mu fees wane ci seen bopp mu nekkoon journée bu rafet journée bu neex lu neex la woon Ouzin ñu bëree ñoom ñaar gis nga ba caatu booy bambara daan Modja Mhm. nga gis fa bëre gis fa xeex gis fa ngar mi gis fa lépp. bari na ci ndaanaan yi daal combat yoo xamante ne vraiment ay combat yu neex la yoo xamante ne amateurs yi ñu ngi ko doon séentu gis nañ ko ni ñu ko bëggee am na ci combat yoo xam ne vraiment dañ ko doon séentu malgré yeggul. Mhm. wala amewuñu ko ni ko bëggee mais teewul amateur yi ba tey kontaan nañ di ñaanal ñëpp jàmm amateur yi kontaan nañ. Mhm. Euh, defe naa ne bi saison bi ti jéeg léegi changé nañ fi ki nga xamante ni mooy président du CNG. muy Bira Euh, mu ñëw fekk loo xamante ni nii ñëpp nee nañu woon munu ko. Hmm. ñu ne woon day jéem waaye du ko def mais bi mu ñëwee malgré yàggagu fi mais hmm. ci doxalin bi naka nga ko gisee est-ce que gis nga ne li muy def noonu la wala bu ci yokkoon nangam ak nangam dina baax wala boog est-ce que mën a woo nit ñi gën a yokk waxtaan ak ñoom gën ko dolli li nga xamante nii moom lay def wala naka nga gisee. ñëw bi mu ñëw bi CNG ak làmb ji nga xamante ni suñu papa bi seen jiite na ko ci saison bi ñu nekk nii. waaw Ousseyn CNG bi dañ leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal suñu papa Bira hmm. ndax vraiment ci moment bu bu bu, hmm. ci moment boobu la ñu ko joxee li nga xamante ni mooy CNG bi. Hmm. ndax bu bu CNG jugee ci loxo bu mag. muy suñu papa euh, docteur Alioune Sarr dal ci tàbbi ci loxo yi suñu papa Bira Sène Mm. mooy wane ni làmb mu ngi mu ngi def ay jéego. ndax mm. suñu papa biraa yaakaar naa suñu papa Alioune Sarr su ma juumul ñun ñi dañoo dañoo juddu fekk ko mu ne ci làmb. Mm-hmm. wala mu yor làmb. tey ñu dem ba ba màgg ba commencé ràññee. mu mm-hmm. mu jugee ci làmb ñu jox ko yeneen yeneen i loxo du ñu ne def fi lu fi suñu papa Alioune Sarr def dina yomb waaye pour def fi li mu fi deful ci làmb du du doon lu yomb. suñu mm-hmm. papa Bira moom it mu nekk nit koo xamante ne nit ku baax la Ouzin. papa Bira vraiment boo demee bureau boo fëggee rek mun na la entrer. man mii jël naa ko interview dama dem biroom fëgg ne ko président yow laa soxla mu ubbil ma buntam. vraiment te loolu daawuñu ko am. Mhm. loolu nag dañ ko ci ñaanal jàmm. di wax ni euh, mu gën a xoolaat liggéey bi. mu gën a xoolaat taxawaay bi mu gën a xoolaat doxalin bi parce que ñun ñëpp ay njabootu làmb lañ te ñun ñëpp moo ñu boole yilif mhm. ñu ngi koy ñaan ci li nga xamante ne presse en ligne bi ñu ngi koy dund ci làmb mu fexe ba teg ci loxo mu fexe ba taxawu ci fan yee dalal nañu vraiment recevoir nañu ñuy jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo fa demoon ci association des reporters en ligne bi. Mhm. di leen jaajëfal bu baax di ñaan lépp lu ñu fa wax rek yàlla na suñu borom def muy nekk njariñu làmb waaye mu nekk njariñu presse en ñu leen jaajëfal ñoom bu baax a baax ñoom it. gis ngeen bu ñu jógee ci loolu damay ñëw ci violence. Mhm. ndax kenn ku ne xam na ne violence baaxul image nekkul image boo xamante bu rafet la nekkul loo xamante ni ñun ñu nekk ci làmb bëgg nañu ko. Mhm. waaye ku ku ku ku amul pexe rek. Mhm. defe naa ne. Euh, noonu nga mën a waxee ndax euh, jubluwuñu ci dem ci làmb pare mu am ay violence yoo xamante ni nii hmm. saa buñ ko déggee ñun dañ ci am lu ñu naqari saa buñ ko déggee du hmm. doon image boo xamante ni dañ koy rafetlu hmm. malgré des fois ñu génne yenn violence yi ñu ko génnee parce que dañoo bëgg a yàq mais dañ koy bëgg a génne parce que ñi nga xamante nii dañ dañ dañoo wax suñu biir te ñu ci ñu leen mën a wane ndax bu ñu toogee nit ku nekk nit nga Mm. am na noo xamante bu ñu ko waxee ak yow wala ñu jëfee ko ak boo toogee di nga rus ndax góor-góor dong lu mën a nekk mm. mais ñu gis ne violence bari na ci làmb ji mm. mën naa ci cité yu bare bare bare yoo xamante ni mën naa ko wax mais euh, du ma ko def ndax yaakaar naa ni yu ci bari fekkee nga ko yu bari gis nga ko yan nga ci gis yoo xamante ni nii euh, neexu la wala boog bu ñu doxale woon neneen violence bi dina gën a mën a wàññeeku ci làmb waaw Ouzin violence ci làmb yaakaar naa ni war Sénégal wala làmb Sénégal war nañ dépasé foofu ndax tey boo xoolee euh, li nga xam ni jot na fi xew mm-hmm. ci diggante Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu mm-hmm. ki nga xamante ne mooy préparateur mystique bu ñaq jariñu moo mm-hmm. joteeg alin Seye 2 keroog ñu jàmmaarloo ba Alioune Seye 2 gaañu blessure bu metti ba làmb jooju mujjeewu la am tey loolu bu ñu demee ba gis ko ñun ñëpp ñu di ko ñaawul ñu demaat ba gisaat leneen loo xamante ni bokkul ci làmb muy bu ñu demee ba gis tëggkat mu mm-hmm. jël mbër xaañ ko li nga xamante ne mooy sabaram ba làmb ji yàqu vraiment mbër mi gaañu ci blessure bu méttee métti muy Papa Sow ak Siteu bi passé mu doon loo xamante ne dañ koy ñaawlu Ouzin ñuy gis léegi à part euh, fans club yi wala mm-hmm. supporters yi yi ànd ak mbër yi léegi bu daanee seen mbër ñu damm seesi sànni mm-hmm. bu seen mbër daanee ñu damm seesi sànni da ngay dem ba mujj gi dootoo comprendre ñun ci ban Sénégal la ñu nekk jeunesse bi ci ban éducation la ñuy lañ lañ leen di lañ leen di éduquer. ci ñoom seen biir sax da ngay gis ñu ñu ñëw ci stade bi seetaan si xale yi génn jël xeer sànni oto yi muy toj di sàcc moto yi di yënu di yóbbu. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne image boobu te kenn rafetlu ko ci làmb. Mm-hmm. muy ne muy ci li ma ñëw léegi rek mooy éducation. Mm-hmm. gis nga nit saasu ne. dafa am loo xamante ni eh, di nga am fitu def ko. mais danga koy jomm. Mm-hmm. jomm ji mooy ah man de rus naa kat def lii suma yaay bu ko déggee ban taxawaay lay am suma papa su ko déggee wala sumay frère wala suñu waa koñ mbër des fois mu daanu lu may wax koñ ba eh, waaw parce que xam na ni am na lu mu bàyyi koñ ba mm-hmm. koñ ba mooy am na ci ay noonam yoo xamante ni fi mu toll ni ñu ngi socc seeni bëñ di xaar mu dem ñëw indi defet mm-hmm. bu demee wane ngan mi ak jom ak fulla ak fayda bu ñëwee day kontaan bu amee defet koñ ba lay njëkk a xalaat kon yow mi nga xamante ni yaay dem ci làmb rafet na kat nga nga boo demee nga wane lu lu rafet waaye nga wane lu baax man Ouzin dama jàpp ni làmb amul amul amul amul amul nit ku ku ku ku soxor mm-hmm. mais ñii ñëw ñiy gàmm ak ras dém du ñu benn làmb bari na ñoo xamante ni Ouzin dañuy ñëw ci dañuy mbubboo événement la ñuy xaar mm-hmm. événement mooy euh, combat bu mag dëpp dëgmal nañ ko Balla Gaye de Bombardier euh, le premier janvier ñu ñu waaj seen wàccaay yépp lépp luñ mën a def ñu def ko bu Balla gay 2 di génn këram di dem ñu bokk ci convoi bu Balla Gaye 2 lu ñu romb nga yor ñu këf lu ñu romb nga téye ñu dóor oto bu ñu romb neexoo ko nga toj loolu nag lan la ci Balla Gaye 2 mën Bombardier mii ñëw ci làmb noonu la koy defee gis nañ ko ci Papa Sow te bu ñu ñëwee duñu du ñu dugg ci bunt ba la ñuy taxaw du ñu dugg pandant une heure de temps wala deux heures de temps dañuy taxaw ci bunt ba ba làmb ji di jeex du ñu dugg ci stade bi bu làmb ji jeexee noonu la ñuy yóbboo demaatee ñibbi ñooñu bokkuñu ci làmb. su duma la dog damay ñëw ci diggante. Hmm. Modou Lo ak Ama Baldé ñu koy wax combat royal. Hmm. ñu gis ne njëkkoon nañoo dem fële fi nga xamante ni mooy Sen TV. Hmm. mais làmb ja euh, face to face ba mujjul àgg. ba ki démb la vingt cinq bii nii ñu waroon daje arène nationale. ci diggante Modou ba tey ak Ama Balde weñ boobu daf mel ni jama ko yónni nag waaye dinañ wax ak moom. <laughs> waaw ñu hmm. gis ne euh, doon nañ ñëw fee ci stade ba arène nationale ba mais ba tey mënuñu àgg ba tey ci diggante supporters yi ak mbër yi naka nga gisee boobu violence tamit ba tey dafa am ci diggante mbëri seen biir ndax ci lutte simple bi. Hmm. violence dafa bàyyi ci ñoom naka ngay ñëwee ci jàngat boobu. Ousseyn mooy li ma wax rek. violence li ko njëkk ci làmb mooy acteurs yi ñu jiite làmb ñu fexe am communication bu mm-hmm. communication bu baax ñu xam ne ñoom ñaari mbër yi bu ñu wéetee ci digg géew dañuy jëflante Ouzin musoo gis mbër mu ñu daan ci digg géew bi gas ba mu xóot suul la amagul mbër mu ñu daan dañ lay bàyyi nga ñibbi sa kër te booy ñibbi say supporter ngay àndalaat say mbokk say ndam loo am ci làmb lu mu rëy rëy defet bu ko gën a rëy mu lay xaar loolu nag euh, li wolof naan euh, jullit mooy xam natt waaye piir bi moo koy nangu. Mm-hmm. parce que tamit vraiment làmb nga dugg ci natt la defet boo ci am natt la mais da ngay nangu natt boobu yàlla suñu borom tegaloo mais làmb bëri na ñoo xamante ne ñu ngi fii ñu ngi ciy teral seen i bopp di ci teral seen i mbokk di ci teral seen njagañaale di ci teral ba teral ci ki nga xamante ni sax bokkut ci làmb mm-hmm. kooku nag munoo lu dul di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm violence bi ngay gis ci li traditionnel bi dafa ñaaw Mm-hmm. ci ay mbër yoo xamante ne vraiment bu njëkk li traditionnel da ngay gis plus de cent cinquante lutteurs dañuy daje ci benn géew. Mm-hmm. amul du am service d'ordre du am dara ñuy bëre di bëre di bëre di bëre ba làmb ji cinq heures du matin lay jeex wala six heures mbër yi ñoom ñëpp ñooy bokkaat benn porte ñibbi. bu ñu demee bay gis ay violence ay xeex yoo xamante ne mën naa ñàkk di jóge ci ay mbër bu si amateurs yi ñëw di wuy si li traditionnel bu ñu bu ñu bu ñu melee noonu wala ñuy ñuy supporters yi supporter mbër yi. te bokkuñu ñu melee noonu dina ñaaw xoolal diggante Modou Lo ak Ama Balde Modou is est que mën naa am combat bu gën a rëy diggante ak Balla Gaye 2 seen combat bu njëkk ba 2012. déedéet 2011 2012. est-ce que Balla Gaye 2 mën am combat bu gën a rëy combat yi nga xamante ne jot na ko bëre diggante ak Nees diggante mag Papa diggante ak Fëgala euh, moom moom moom moom xale bi Ama Balde. Mhm. mënatul am journée yu mel noonu journée bu nekk bëri na ko fi. mais ñoom ñiy ànd ak mbëri chaque fois dañoo war a ànd ak seen conscience tranquille xam ni kat làmb benn tàkkusaan moo leen boole ñoom ñaar ku ci nekk day ñëw wut si li nga xamante ne mooy sa Modou Lo di ñëw seen TV keroog Ama Baldé moo jiitu seen TV Modou man fa la ma fekk. Mm-hmm. mais keroog désordre bi ma fa gis yàlla suñu borom moo ci def ndox mu sedd Ouzin ba Modou bi muy ñëw. wala bi muy bi muy bi ñuy naan yegsi na seen TV man fekkuma fa ñibbi naa parce que njortoon naa ni Modou bu ñëwee fii catastrophe bu rëy dina am fii yàlla suñ borom def ci ndox mu sedd ba ñoom ñëpp ñibbisi na ñibbi nañ ci jàmm jàkkaarloo bi ñu bëggoon mu jéewu la am xoolal bërki démb promoteur bi nga xamante ni dafa investir xaalisam def publicité am def ay annonce def li nga xamante ni mooy communication ba àdduna bi ñu ci bari jënd nañ code sax di xaar jàkkaarloo Modou Lo Ama Baldé ay xale yoo xam ne lekkoo leen ci fukki dërëm yàq journée promoteur boobu yàq face to face boobu nekk fi di toj ay oto jàmbur wala di yàq oto jàmbur yaakaar naa sa kër bu amee benn puno nga xam puno importance bi mu am ci biir kër doo romb oto Ouzin di ko toj wala ngay romb moto Ouzin di ko toj kon ñoom ñi nga xamante ne ñooy xale yi muy kaaw Modou Lo muy kaaw Ama Baldé vraiment nañu xoolaat seen taxawaay surtout waa Pikine yi surtout ñi nga xamante ni ñooy ànd ak Ama Baldé parce que bu bu ñu nee yaa jiitu fële problème am na ba signature bi amul nga jiituwaat fii ñu ne problème am na ba signature bi amul am na loo xam ne rafetul ci deru Pikine. Mhm. Pikine ngemb nañ mbër mu nekk mu ñëw ci làmb am ndam ngemb nañ mbër mu nekk mu am ñu ñëw ci làmb am defet nañ leen xoolaat taxawaay xool ta tollaay xool lépp loo xamante ne day defar làmb ñu gën ci taxaw Ouzin. loo xamante ne day defar làmb ñu gën ci taxaw ndax bu ñu reculer ci ginnaaw tuuti doon naa dégg Ama Baldé. Mm. mu ne su Modou loo demoon ba yor beeke. Mm. dinaa nangu beeke bi bëreeg moom. Mm. ba noppi doo ko jox beekeem mu téewaat. kooku am na rêve bu mu am bëreeg Modou Lo. Mm-hmm. kon defe naa ne rêve boobu boo demee ba di ko waaja a réaliser. defe naa ne lépp loo mën a def wala lépp noo ci mën a moom Ama Baldé da ko war a def. Mm-hmm. ñoo ngi koy ñaan nag mu comme que ay xale dañoo topp ci ginnaawam. Mm-hmm. ne def communication boo xamante ni nii bu Modou Lo doon romb di leen sa jàll baat sax dinañ ko bàyyi mu dem ba jàkkaarloog seen mbër ba seen mbër mm-hmm. mbébét bi mu amoon. digganteem ak Modou Lo moom mu mën ko àggali moom Ama Baldé mm-hmm. ñoo ngi lay ñaan loolu ndax xam nañ ne mm-hmm. xale nga mais xale bu am jom nga xale boo xamante ni boo jógee waa Pikine ñëpp topp sa gannaaw la mm-hmm. mais defaraatal bés bi gën a sensibiliser sensibiliser waat say supporters ak say am di jàmm yow muy Ama Baldé gën leen a ñaax surtout parce que des fois da ngay gis ñi bëgg Ama Baldé te amuñu ci moom sago dañuy def ba def loo xamante ne day yàqal mbër mi tey Modou Lo ci biir waxam waxoon na ko avant ne man de jotuma jot avance. mais promoteur bi am nañ ay protocole d' accord protocole d' accord boobu Ouzin moom la suñu maam yi amoon ci suñu biir mooy kàddu bu dëggu kàddu bu dëggu nag bu ma ne la tey suñu maam yi bu njëkk bu ñu la waxoon ne la abal ma quarante millions amul décharge amul bind amul dara. Hmm. ci kàddu googu dara mënul wax wax wax ba seen kàddu boobu du deñ kon Modou loolu la am ak promoteur bi. xaw ma ba xam avance dugg na am déet waaye moom ci loolu la jotoon tënku Ama Balde na fexe ba bëreek Modou na ko jaral lu ne. Mhm. bu ko jaroon sax moom Ama Balde mu dem parcelle. kari Modou Lo moom conva ànd ak moom dugal ko ba biir stade jox ko siège bu mag ne ko toogal mu toog nga koy xalamal di ko gitaara ngir bëreek Modou jar na loolu. Mm-hmm. parce que Modou Lo actuellement moo yor lu ñëpp soxla ci làmb. Mm-hmm. muy couronne roi des arènes. te ko neexoon bañ bañ koo may chance bu ne bëreewu ma ak Ama Balde munu ci dara. Mm-hmm. Ama Balde ci dara. parce que Modou bëree na ñu gën a supérieur Ama Balde. wax wax dëgg ca la. amul daal lu muy gagné bëri naa Gris Bordeaux te Gris Bordeaux bëriwul ak Ama Balde. Modou Lo bëri naa Lac de Guiers Lac de Guiers 2 ak Ama Modou Lo bëre na ak Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 bëriwul ak Ama Baldé. Bombardier Modou Lo bëre na ak Bombardier Bombardier bëriwul ak Ama Baldé Modou Lo bëre na ak Eumeu Sène Eumeu Sène bëriwul ak Ama Baldé Modou Lo ñu gën a tëj ci làmb ji daa bëri ñoom booy ñaan sens nag wala ngeen daje ci làmb ba làmb boole leen li gën mooy ñu fexe ba nu ñu sauver làmb ji man nekkalu ma fi Ama Baldé nekkalu ma fi Modou Lo mais dama fee nekk ngir intérêt làmb waaw mm. ñoom dama fi nekk ngir intérêt làmb su ma gisee lu rafet ci Modou Lo dama koy wax su ma gisee lu rafet ci Ama Baldé dama koy wax mais su ñu gisee lu ñaaw vraiment tamit noonu la ñu koy waxee. dénoncé. Mhm. dañ koy wax ngir ngir que ñi ànd ak mbër yi ñu xam ne vraiment am na loo xam ne ñaaw nañ leen xoolaat staff bi gën a waxtaanaat gën a xool supporters yi nan lañ leen di ñaaxee ba signature boobu ñëpp di xaar mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mu am ci jàmm ak salaam Ousseyn. Ah, su ma jógee ci loolu damay ñëw ci promoteur yi. Mm. ndax defe naa ne mënoo wax làmb te waxoo promoteur. Mm. moom mi nga xamante ni mooy dem liggéey dajale alal am. dajale fukki dërëm ak ñaar fukkam di joxe avance am dem CNG wuti wuti sponsor ah dem wuti wuti wuti service d'ordre dajale ay dajale dajale la am ba bés ba ñëw te xamuloo fan la jëlee xaalisam. Hmm. lan ngay wax promoteur yi nga xamante ni nii ay gan nañ ci làmb. Hmm. ak ñi nga xamante ni nekkoon nañ fi ba tey di jëmmal làmb ba làmb ji mën a am ba mun ñu mën a toog di ko waxtaanee lan nga leen di wax. ndax ñoo xamante ne ay ndaanaan lañu ndax. Hmm. dem liggéey ñoo jox ko ay mbër toog di xaar. un mois six mois ba jàpp un an ñooñu kenn amul seen fay lan ngay wax ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy instant bi ñooy doxal làmb. Ousseyn mooy sànq li ma wax rek di jaajëfal képp koo xam ne am na fit ndax yaakaar naa investir képp ku koy def am nga fit doo ragal doo tàppet parce que ñooñu dañ leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal lépp lu ñuy séntu ci làmb yàlla defal leen ci lu kawe seen jot Ousseyn ñett ñi. kuy boo ñett ñi kuy gëm yàlla. bu yeboo jàpp leen. Mhm. ki njëkk mooy baykat. Mhm. ñaareel bi mooy commerçant ñetteel bi mooy promoteuru làmb li tax ma wax loolu mooy baykat dafay jënd jiwam jëmbat ci suuf di xaar yàlla suñu borom taw. Mhm. taw boobu ji lu lu meññeef boo xamante ni da koy mën a jaay am ci dara. commerçant bi nga xamante ni day jël fii dagg billet dem ba bitim réew jëndi ay marchandises am yépp ko ci conteneur indi ko. jëndee donte da cee def benn cinquante millions mu ngi ciy séentu benn dix millions bu mu ciy am ñëw teg ci butigam di jaay di xaar yàlla ñëw kooku mm. kenn gënu koo gëm yàlla. Mm-hmm. promoteur tamit noonu la mel. day jël avance jox ñaari mbër dem jàpp dat CNG euh, jënd licence am def promotion làmb ji di xaar bis ba jot mu mu mun koo satisfaire des fois promoteur joxe xaalisam ba pare Ouzin jouru làmb ja sax bu jotee benn mbër bi na dafa blessé wala mbër bi ñëw ba stade mooy mooy loolu. ndax yàlla suñ borom rek moo xam yàlla bu mu am mais daba dabagul ci làmb ñu ne mbër mi kat ma ngay départ ñëw di ñëw start ñëw ba ci yoon bi piqué ne crise yàlla suñu borom def na mu génn àdduna tey loolu mun naa am ci làmb ñaana luñ ko benn mbër mais bu amee promoteur bi ba tey mooy doon perdant bi ndax yaakaar naa ne képp koo xamante ni dafa génn àdduna sa ngor ak sa yërmande mayu la ngay dem ci ay mbokkam di leen fayee li nga xamante ne mooy sa xaalis. Mhm. gis nañ ko ci xale boo xamante ne vraiment moom it dafa génnoon àdduna bokkoon ci làmb. mooy Papa Yadda nekkoon xale boo xamante ne vraiment contrat du ko lié woon ak benn promoteur buy Fallou Ndiaye Ndiaye production yàlla suñ borom dogal mu génn àdduna. mais moo loolu yëpp ci làmb la bokk. parce que yaakaar naa ñun nii ñëpp xamuñu luy xew suba. Mhm. yàlla suñu borom rek moo xam mais promoteurs yi ñu ngi leen di gën a ñaax. di gën a wax sponsors yi nañu ñëw jàppale leen. Mhm. ay xale lañ ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyi seen waar ci làmb. vraiment nag kaay dimbali ma amut ci làmb parce que ku ci nekk da nga am produit boo xamante ni da nga ko bëgg a fësal. promoteur bi yor loo xamante ne lépp loo bëgg fësal ci làmb goo ko mën a jaarale bu fës. Mm-hmm. kon ñu ngi ñaanal promoteur yëpp ñoom it at bi ñu jëm yàlla na doon at boo xam ne atu naataangale ci ñoom yàlla na koom-koom gi gën a bëri ba ñu gën a mën a investir ci làmb ba ñu gën a mën a tëgg ci làmb waaye maa leen di jaajëfal ñoom ñëpp di jaajëfal sama xarit bi jam nga xam ne bu la waaye noonu la bëree solo bëri problème jamaykee di leen jaajëfal ñoom ñëpp ndax mm-hmm. euh, kii jël alalam di ko jox nit defe naa ni kooku jàmbaar la daal. Mhm. jàmbaar la ndax di jàppale ay xale te dafa ñu la daal fekk koo xamante ni daan xëy di tëdd di nalaw di dem di entraîner. Mhm. pour wut lu mu euh, jox ay waajuram nga ñëw yëkkati xaalis ba di ko jàppale di ko jàppale ba mu mën a jàppale ay waajuram jàppale ñeneen koo xamante ni sax bokku ci ñoom. Mhm. dañ koy jaajëfal defe naa ni loolu laa amoon ci yoo xamante ni bëggoon nañ ñu waxtaan ci wala ñu leeral ci bu ma amee lu ma fàtte. nga ah, ñëw ci lépp rafet na noonu daanaka li wolof daan li duufandoo ci nag xajandoowul ci ni ndax comme temps la ñuy liggéey te temps internet ñu ci bari dañuy bëgg time bi nekk temps boo xamante ni lépp loo ci def ci émission dañuy bëgg ñu seetaan ko te ñu nit bu ñu sañoon lépp lu ñu def ñoom ñëpp ñu cons ko comme ni ñu ko bëggee moo tax dañuy jéem a xeex ak temps bi rek di ko fexe ba limité ko ba lépp lu ñu ci bëgg rek ñoom ñu amee ko noonu hmm. euh, ku ku ku ku ku ku ku nan laa ko mën a waxee sax ci olof ku laal ku ku fóotal mbëtt rootil bër. laal rala laalil bar laal. ku dul may boppam daal lu mu am jël. <laughs> loolu du ma bàyyi loolu ku fóotal mbëtt laalil. rootil bër laal. ren luy rooti rooti la rootil bar root. root jël paan teg def ci ndox root loolu. root la ku dul may boppam lu mu am ah. jël. Ah. defe naa ne loolu ñu amoon ci temps mais nag balaa ñuy tëj. Ah. Euh, dañuy nuyu ki nga xamante ni nii mooy kilifa gi. Mhm. muy baabu. Mhm. ndax defe naa ne euh, ku ci nekk boo fàttalikoo bi mu lay njëkk woo. xam nga ca lam la fekkoon. Mhm. Euh, fekk ñu ñu tëdd di nelaw. waaye defe naa ne am na fu bari foo xamante ni. yóbbu nañu fa. te chaque jour nañu woo dañu pousser xam nga ngay liggéeyloo ak nit ngay liggéeyloo nit. te nekkuloo ak moom dafa metti ndax ngay liggéeyloo nit gisuloo ko dégguloo ko pendant ay at. nga di ko metti ci condition yu baax. di ko teg foo xamante ni képp koo xamante ni da koy gis rek bu sañoon liggéey ak yow yombul. Mm-hmm. ndax nit ki mën na lay liggéeyloo ba noppi di la teg fitna. Mm-hmm. mais da lay liggéeyloo ba noppi di la encouragé. ba tax na ñoo ngi koy gis li muy liggéey ñoo ngi koy jaajëfal di ko sant bu baax baax di ko wax ni bon continuation ndax chaque mm-hmm. jour loolu la ñuy wax comme sànq ni ko sëñ Bass waxee. ku ci nekk bi ngay ñëw. ay tànk nga yoon yàlla dogal na am nañu waruwaay. Mm. ñoo ngi ñaan yàlla waruwaay bi gën a yokku. Mm. ba ñeneen ñi nga xamante ni nii euh, mm. dañoo yéene. parce que chaque jour dama ko koy wax nee naa ko. bu nekkoon ñun ak ñun rek mu neex. ku ci nekk xam na yéene bi nga am ci ñun. waaye ñun tamit xam nañ yéene bi ñu am ci yéen. yàlla nañ fi yàlla bàyyi bañ mottali ko ci jàmm ak salaam moom di ko ñaanal bu baax a baax moo xam li ne ci xolam yàlla na ko yàlla defal mottali ko ba mu ba ba ay njabootam fekkee njariñam ñun tamit mm. lépp loo xam te mbébét nañ ko rek yàlla na yàlla yi mottali suñu mbébét bàyyi amiin yaa rabbal aalamiin Ouzin am na solo euh, may jaajëfal bu baax euh, di ñaanal di souhaiter un bon anniversaire sama xarit Ouzin koo xamante ne. Euh, suñu xarit wala sa xarit sa xarit waaw ah, kon muy suñu xarit bu <laughs> daale suñu xarit parce que yaakaar naa ne à travers wasaare làmb ci laa ko xam mhm. mais suñu relation man ak moom dépassé na at euh, en tant que ay jël jël interview wala yu mel noonu muy Serigne Mor mhm. mu nekk nit koo xamante ne vraiment bi ñuy xamante man ak moom ci ci ci ci ci làmb la ñu xamante mais relation bi dem na ba dépassé léegi làmb léegi dépassé nañ relation làmb mais relation frère la mag ak rak maa ngi koy ñaanal moom it yàlla suñu borom defal ko jàmm tey la anniversaire am di ko ñaanal soxnaam mi di ko ñaanal njabootam gi ñëpp lépp loo xamante ni bëgg na ko yàlla suñ borom defal ko ci lu kawe njortam tànqam lu ma benn yoon saa yu ma ko wooyee dina wuyu si. Mhm. saa yu ma ko su toogee ba mu yàgg dégguma dina jël te Ouzin ñun wax dëgg yàlla suñu borom daf ñoo dimbali. Mhm. mooy vraiment du ñu ne du ñu ne kenn yàlla mu ngi lay nuyu te gisuñu yàlla. ndax yaakaar naa àdduna lépp lu waaye di am di ko maye. li waay di wut rek nit yor na ko di ko maye. Mhm. ndax yaakaar naa nit mënuñoo defal ci àdduna lu ñu amut. déedéet eh, ñu ngi lekk ñu ngi naan yàlla suñu borom mu ñuy ñuy wërsëgale donte fukki dërëm nañu am doyloo nañ ko mais yëg-yëg boobu dafa am solo. Mhm. sëriñ bi léeg-léeg boobu mu may def di ma woo téléphone di ma di ma siyaar di ma booleeg sax ay nit yoo xamante ne danaa leen damaa bëgg jiili mii kat ngeen ma koy teralal kon kooku mënuma ko fay di siyaar bu baax maam du depuis France moom it mu nekk nit ku baax du sama xarit di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm di jaajëfal bu baax kër gi kër gi nag su ma ne ko su ma ko waxee wolof daf na jën bu nëbee ci bopp ba lay commencé mm. bopp ba nag mooy ki nga xamante ne mooy Babou mbay moom mi nga xamante ne vraiment euh, ñu ngi liggéey mais vraiment nekk na nit koo xamante ne man des fois dimension du ma ko mën a comprendre parce que man des fois dama koy wax am lu ma metti lool woo ko parce que loolu ak liggéey ñoo ànd. Mhm. mais li mu lay xamal mooy lépp lu la metti na am ci liggéey bi. yéen ci liggéey ba lépp lu ngeen mën a xuloo ba jàmmarloo sax xeex toj écran bi ci ginnaaw ngir liggéey bi jëm kanam jar na ko. Mhm. kon mu ngi lay pousser que ni liggéey rek moo am solo. Mhm. mu ngi lay wan nii lépp looy am ci àdduna liggéey kese moo ci ëpp solo. ñu di ko ñaanal moom jàmm di ko ñaanal soxnaam di ko ñaanal famille yépp yàlla defal leen jàmm. ndax yàlla dafa def euh, mu nekk nit koo xamante ne vraiment mu ngi génn na barki démb gis nañ son bi nga xam ni def na ko Nigéria mu nekk son boo xamante ne vraiment boo ko xoolee xam ni liggéey na ci lu baree baree bare mm. liggéey boobu nag yàlla na ko yàlla suñu borom kàttanal dooleel ko di jaajëfal ñëpp mbaru làmb yi suma xarit yi ñëpp maa leen di mm. jaajëfal Ouzin man képp ku am licence suma xarit nga am suma numéro sama xarit nga nga ñàkk am sama numéro sama xarit mm. ñuy déggante sama xarit ñu ñàkk déggante sama xarit parce que ci làmb laa nekk te su ma sañoon mbëru làmb yépp am jàmm su ma sañoon yàlla xam ne ni képp ku ci bëgg a teral say waajur nga teral ci say waajur mbër mépp bépp mbër ci écran laay waxee bépp mbër moo xamante ni mës naa ñëw ci yow wax ci sa adversaire ma wax la ci beneen mbër bu yeboo nga ragal ma te xam ne du ma nit ku dëggu hmm. Ouzin man damaa bëgg lépp lu may wax ak mbër muy mu mu doon loo xamante ne vraiment luy defar la parce que ñun loolu la ñu yore. Mm-hmm. ñun judduwuñu ci milliard judduwuñu ci million mais ci yar ak teggin la ñu juddoo ñu ngi ñaanal jàmm ñëpp di ko sàkku ci ñoom di la jaajëfal bu baax. ci émission bi gis naa ni nga def macha allah sañse nga mais di sa jaajëfal suma xarit bi nga xam ne Babacar borom Espagne mm-hmm. Ousin baaba faw ma maa moom at bi benn yoon lañ ciy juboo mm-hmm. muy 31 décembre dafay am fête mais ci 31 décembre boobu ci la ñuy juboo costume musuma xam nu muy jar ba fi may wax ak yow costume yi ci yor wallaay li ma yor ci costume dafa bari. bii démb la ma ko mujjee jox. bi ma sol nii te xaw ma ni woon sax moom laay sol mu woo ma ma ñëw mu yëkkati costume yaay bu demee Espagne buy ñibbisi daf may woo appel vidéo dem boutique bi gën a seer boutique Zara yi jël xool costume bi yi gën a rafet ne ma ba xam bëgg nga bii ba xam bëgg nga mujj gi sax dama naan ko bëgguma même dàll tubay chemise super sang cravate vraiment dama koy ñaana yàlla suñu borom defal ko jàmm defal ko famem yépp ba mbébét bi mu am ci ci ci famem rawatina ci ay mbokkam ci ay xaritam yàlla suñu borom kàttanal ko doole ko ndax ku dul sant nit kat sant yàlla suñu borom. ku la bëggul sax nag du la woo. wallaahi wallaahi parce que teraanga yooyu bëggul sax ma di ko wax. mais mm. des fois nag dafay jar vraiment wolof daf ne ku la defal lu baax boo ko waxul. booy lim ay noonam nanga ko ci boole. ku gëmul nit ma koy ma koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal famille bi yëpp di la jaajëfal yow tamit. di la jaajëfal yow tamit kontaan naa ci yow bu baax a baax li may wax chaque jour rek. ku dul may boppam lu mu am jël ndax defe naa ne temps bi dafa am ñeneen ñoo xam ne dañ ko bokkaale ndax defe naa ni tey la 31 décembre hmm. ku ci nekk war nga ñëw wax li nga xamante ni moo la màkk ci bés bi hmm. di gërëm sama cameraman yu ñaaw gëdduñ ñu benn yoon dañ bàyyi ak suñu sago ñu def li nga xamante ni moo ñu saf damay kontaan ci yow di la wax ne la. dégg naa liggéey bu rëy mu ñuy xaar. suñu bakkan yi lañ soxla waaye dinañ ko bàyyi ak ñun nag. incha allah mais xale du sonn aussi. Uh-huh. waaw ñu leen wax daal en tout cas. wasaare làmb moom képp ku yaafus munoo ànd ak ñoom. képp ku tayal munoo ànd ak ñoom képp koo xam ne disponible oo noo nekk ñoom parce que ñi ñu yónni yaa xamte ñu dañoo bari waa États-Unis France Espagne Italie Canada Brésil ah Gambie Mauritanie ah euh, Guinée-Bissau Guinée-Conakry Guinée Sékou Touré Guinée Sacha Birame euh, Ousseyn seen dëkk waalo Ndomba ah suñu dëkk. Bilor waaw ñëpp ak ñuy xaar ñëpp ak ñuy xaar parce que lépp loo dugal ci wasaare làmb dañuy yàqamte xaar ko. mais nañ leen xam ne ñu ngi ñëw ak lu bees tàq ñu ngi ñëw ak yeneen yu garaaw Ousseyn boobu jàmbaarloo bi dégg naa day gën toj. ñaari bëri dañuy gën a laal léegi nag dañ doon dañu doon recruter commencé gu de <laughs> échauffé échauffé guñu. <laughs> ah, ah tànn guñu. waaw <laughs> ah. jëlaguñu mayo yi. Ah. di leen jox dig daje ba beneen yoon. ci yeneen émission ak làmb ak Baye Jili. ak Ousseyn di leen jaajëfal sama gars yi. jaa ngeen jëf. Eh.